dafa kaawoo dafa kaawoo dafa kaawoo man dee ci Sosowoo dafa kaawoo man dee ci Sosowoo dafa kaawoo may dee leen ci Sosowoo رقيا بي بي نار وسا نار خادم وسملاي رقيا بي بي نار وسا نار خادم وسملاي سم نيبو بگي مدو کي جا پري بلا karena bulan mengganti berwaikan keserah pembelawan fancy Nice. wàcc sil wàcc sil yàlla yàlla jàppale kontaan nañ trop kontaan nañ trop bilaay walaay kii amuñu fayam amuñu fayam mooñ dina ñaari bologu bi lu yel ñu barke Sëñ buñ ko waxul góore wuñu kii defal nañu lépp moo tax ci combat bi ñu am ci réussite totale barke Sëñ Tuubaa di ko ñaanal lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla defal dañoo ñëw tànkam lu wuñu benn yoon kii mooy suñu papa Père Latir Ndiaye dama bëgg ngeen xam ko bu baax a baax a baax di ko ñaanal lépp lu mu bëgg rek yàlla defal ko ko ci barke Sëñ parce que kuy jël lu wër ci jamono jii nii xam nga lolou yombul waw ñu ngoy ñaan rek lepp lu mu bëgg yalla defal ko ci barke Sëriñ touba suñu papa la suñu lepp la lu mu mën ren ak lu mu bëgg rek ci Sénégal yow ya ko xam lo yeen ci Sénégal yalla nako yalla defal ci barke cheikhul khadim lolou la lay ñaan inshallah allah na naa trop bo assalamu alaykum ma lay ma lay di ma lay di nuyu yéen ñëpp di wax ni ndam ni yalla ji am ay ndam top amin amin lima lay leen moy yàlla na la defet ump amiin bu la defet umpee hmm. mooy da ngay gañe rek waaw incha yàlla na la yàlla sàmm nga nekk roi des arènes amiin amiin amiin amiin yàlla mën na ko hmm. nga jàpp ne jàppale bi ñu lay jàppale hmm. ñu ngi seetlu la sunu borom ni politique taxul xam nañ loolu baax euh, ndax sa maam tanta ak suma yaay Marème Cissé ak Khady ñoo sekkoon lépp ci àddina ba say nijaay Ousmane Gomis ba sa wéy juru góor ñoo màggandoo di la ñaax rek ci ñett yi bi jiitu mooy na nga déglu si staff na nga déglu si staff te ñi nga xam ne ñoo lay gunge boobu ak léegi lu mën a xew bi ci toppaat mooy na nga respecté entraînement yi bi bi mujj nag mooy jàppal na ngay sellal rek boo ci nekk incha allahu rabi ci barke yonent bi salaatu di nga nekk grand champion en tout nga jàpp ni du ñu la bàyyi ñu am muy man waa kër Faye Marème Cissé ba sama soxna Oumou Fall danaan ma Euh, Gerbaat Ousmane Diouf bi. dafa jar a jàppale. kon nag ñoom maa Diop ñii ne sama ginnaaw. ñoom Moustapha Diakhaté ñoom ñëpp. dama koy wax sànq Abdou Latif bi sama rak ma gërëm ko. ma ne ko ñi nga xam ne ñooy suma bokk. daañu wàññeeku bokk ci fans club bi. ànd ak ñi nga xam ne ñoo la ba tey. bu soobee suñu borom. daañ ko àndandoo nga dem ba nekk roi des arènes yàlla mën na. Pape Latif waaw nga xam nga lii rek dafa neex waaw lii dafa neex nga xam nga Thiès manqué na champion. mais tamit bëgg euh, naa ñu jàppale tamit sama nijaay bu baax. ñu ko ci yoon wi ñu ne ñun ñëpp ngeen jàpp ngay xam suñu ñëpp bopp la. waaw du yàlla taxawuñu. daf ñu ndaw yu am barke. waaw ñu nekk ndaw mu booloo doon benn say. waaw ko ñu jàppale sama nijaay Pape Abdou Diop moom jeunes rek moo a jóg. dëggantaan ñun ñëpp jeunes yi moo ko tax a bu mu def ci xale bi dafa yaru tey rek le léegi xamal li bëgg sa yar moo la ko may looy defati man soo ma woo man dinaa ci bokk ma ngoog loolu rek laa bëgg waaw ci ñëpp ñëpp a kontaan. man ni nga def suñu sud bi man ni nga def poos buy rek. ñëpp ni ko ni mu def poos buy ni mu def loo. parce que dem ordre de mérite lay jël poos buy. ba tey mi ngi koy dóor bu subaa dinañ la ko indi booy bëre sax du jàngi non kontaan nañu. macha allah kontaan nañu macha allah Ousmane dañoo kontaan xol yi dafa set macha allah. ci kaw ci kaw ci kanam rek rek la jëm da ngaa yaru ma bu fi jooy ma ne ko sama xol moo sedd yàlla nañu indi ndam ni ndam ni Clé d'or dafa baax koñ bi xeebul kenn ñëpp lay nuyu yàlla na la yàlla defal ndam saa su ne. sant yàlla sant suñu ñaari waajur. waaw sant suñuy bàjjen ak suñu papa a suñuy nijaay yëpp di sant di sant président Fatou Seye yëpp. waaw di sant dëkkandoo yëpp nag di yëpp su ma nekkee lim koñ tax dina am ko ñu ma bàyyi te bëgguma loolu bëgguma def loolu. waaw di nuyu li ko wër yëpp maa ngi leen di nuyu baax a baax a baax di nuyu sama turandoo Kédour Fall. di sant bu baax a baax di sant Pape Ndeye Ndiaye ci lim ñu defal moom tamit ñu leen di bu baax a baax a baax oh. te monsieur le maire Cheikh Lo moom tamit ñëw na fi ñu tee ñu ngi baax a baax mais balaa ma sori ci wax ji rek damay bàyyi sama bàjj ki xam ne moo fi nekkal sama papa mu wax waaw salaamaaleykum waa télé maa ngi kontaan bu baax a baax su sama xol bee sedd ci ndam la. mais comme moom daanaka wax na lépp xale la waaye xam na ne boo tourné benn baat dafa nag moom lu ma la yokk du la ko ñu di ko ñaax rek di yokk di ñaan bu yokk yaram rek di ko continuer bañ a relax gërëm na nag ñu am solo ci man muy ñoom Pape Latif nga xam ne ñooñu démb lañ wax dëgg yàlla fii laa toog xale yi ne ma dafa jaar ci naan maamam Kombe sama xol bi sedd mu am lu ma jox vraiment kontaan naa yaayam toog tamit woo ma téléphone mais victoire am bi ma di ko ñaax di ko xamal ne ko même doombul pël rawatina muy pël kuy sàmm. Oh. dafa di doom ku baax doom am ku am taalibi yaayam dafa am yar am taalibi kii dara jomb ndam li nag damaa ñaan yàlla muy yokk di dem. ndax am <laughs> dama dama dama li nga wax. moom la am fàllu hmm. bi nga jàkkaarloo gël góor fit lan nga yëg. waaw a baax a ci nuyu. Eh, bul ñëwagul si Kawsara waxal ci góor fit. góor waaye ji ki nga doon combat tey mooy kan. Cech Junior. man la man gis naa góor fit waa Cech Cech Junior tey bi nga jàkkaarloog moom. arbitre soufflé lan nga lan nga gën a yëg tey ne gis naa sa open press ne nga waaji boo taxawee dinaa la duma boo yaroo mooy rajaxe la yóbbu la fa nga fa nga jóge tey nga jàkkaarloog moom ñu soufflé nga jàkkaarloog moom waa Thiès nekk sa ginnaaw tey lan daal moom nga yëgoon bi biñ su bi arbitre di sant président bi bu baax a baax a baax parce que président bu mat président am maa ngi koy sant bu baax a baax a baax waaw kooku ma jàkkaarloo damaa sant yàlla rek xam ne man sama liggéeyu ndey bu ma waloo rek lu ne mën naa ko am ndax xam ne man kooku du maag kooku noonu maag ceeg si ñoom damaa damaa xam ne comme suñu première sortie Dakar la ak li ñu yeb li ñuy wax defal naa ak yooyu mais combat bi sax moo na ba ñàkk foofu waaw moo tax bi ñu demee ba ci deuxième round bi moom accéléré combat bi dox ci kawam ñu wecc ooy bu ma jàpp ko braqué waaw mais tamit loolu sant yàlla bu baax a baax di baax a baax a baax ak ñuy jàppale ñuy sant waa Touba baax a baax ak waa Tamba waaw nuyu kenn ci man mooy si daboo boobu moom Fallou maa ngi baax a baax di ko sant di ko gërëm ak magam Moustapha waaw tey fans yi supporters yi yéen tànn seen fay barki Serigne Touba Mbacké yow ma seen fay ñoom ñu ngi nii ñoom ñooy dajale seeni i 100 ak seen i fukki dërëm ko jox ma ciy dund yàlla xam na ko combat bi bañ ko jàppee ba léegi mat na 2 mois wala 3 mois yàlla xam na ko liggéeyu ñoom ñooy xëy ma jox président mi ngi nii toog noonu la ciy def barki Serigne Touba Mbacké dama dem ba dama mujj ruus sax billaay dañu dem dara xaw a manqué sax ñu ne ma laajal diw ma ne loolu du ma ko mën yàlla baax na yàlla dina ñëw walaay ñii aw ma seen fay nu ma mel ñoom ñoo ma ko def barke Serigne Touba Mbacke di leen jégaluwaat baax a baax coono yi rek président fan bi jigéen ñi ñu ngi nii toog waaw ñu ngi nii toog présidente bi sax bu fi nekkoon ñu jox ko kàddu mu wax. la président jël après waaw mais président mi ngi nii nañ ko jox kàddu gi waaw. Eh, leen seen président yëpp rak donc kon nag man man moom li digaale woon ba démb ba mu ñëwee mu am lu mu mos a ma ne ko laa may fayee mu ne ma lamb gi damay duma damay daan kon dañ koy dolli di ko ñaanal yàlla ko yàlla wér ak kattan di sant fan si club bi rawatina jigéen ñi. dëgg fa yàlla ñii moom. mention spéciale. mention spéciale su ma defee damay juum mais nag wax dëgg fa yàlla ñoo gën a tàllal loxo ñi ñëpp ñi di a tàllal loxo di leen wax ñëw leen jàpp ci loo xam ne bala muy xam mais fan si club bi maa ngi leen di gërëm fu gën a a jigéen lañu toggatuñu nelawatuñu tooguñu defuñu dara fi nga gis ni lu fi waay lekk ci sa ñett la ndax ñoo koy liggéenti ñooy def lépp ñu dañ ci dara ñoo ngi gërëm ñëpp nag bàyyiwuñu kenn ak koñ bi kër yi ñu dendal ñëpp ñoo ngi sant ñëpp bàyyiwuñu kenn di gërëm tamit ki xam ne daanaka mën naa ni ma suñu papa muy papa Ousmane jël lépp teg ko ci sama loxo wax dëgg fa yàlla sas la mais dama ci sant yàlla bu baax parce que sas bi tamit euh, aw ma ci gàcce aw ma ci dara ñoo ngi ko ciy gërëm bu baax a baax a baax bàyyiwuñu kenn boo limee da ngay juum mais li ko wër environnement beeg lépp leen di gërëm ñoo ngi leen di sant gis nañ seen taxawaay bu baax a baax di gën a tàllal loxo waa koñ bi li ak li ko wër environnement bi kees ñëpp nañ ñëw jàpp seen loxo nañ ñëw ñëpp nañ yaatal affaire yi ma leen di waxaat ne leen nag dinañ dem moment boo xam ne ñi fi nekk di dinañ ci xat loolu fan si club bi dinañ dem ba moment boo xam ñoom ñu fi nekk as néew dinañ ci xat loolu waaye boobaa ku ñëw tamit ñoo xam ne yëf yi sa yëf la ñu delloo la ko jox la ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf. maa ngi leen di ñëpp ah yow moom yaa mën di di remercier rek tamit ñëpp parce que sànq maa ngi nekkoon foo xam ne xaw na sori sax mais dañ ko seen ñoom ñëpp à l'unanimité di ko di ko ñaanal di ko ñaanal di koy ñaanal mooy ci yaru bu mu yaru ak euh, nu mu respecté ñëpp bàyyiwul kenn di ko ci gën a ñaax rek di ko ci gën a ñaax mu mu loolu rek xam ne fii mu nekk nii gisagoo dara donc loo doon def benn def ci te fii nga nekk tamit ak ñi nga nekkal ak ñii ngay demal gën leen a jàpp gën leen a jàpp ñooy base bi am na foo xam ne nit ki bu fa demee ba toll dina gis ku ne mais nag jàppal ni sa base mooy mooy ñi te gis nañ ni aussi tamit am na loo xam ne moom bañ a yàqam dara xam naa ni moom li lay mooy roi des arènes jomb la parce que nit ku nekk rek am na fu ñu fu mu commencé. amiin li am solo mooy li am solo mooy gëmal sa bopp bañ a yóbbu instant yi bul yóbbu sa bopp ko dara dara xale nga. am nga doole macha allah mën nga bëri. mais nag am na yoon boo xam ni xam nga bu bi nga bi war a bi ngay dëgmal ma la ci ñaanal yàlla na yàlla na yàlla lafal cat rek loolu lañ lay ñaanal